salaamaaleykum. maa ngi lay fay maa leen lay nuyu di nuyu ñi si tànn yëpp ah sa ça fait plaisir aujourd'hui ma ñëw fii euh, fekkee li nga xam ne euh, initiative bu rafet la te grand bi teg ko dafa bokk ci xel mu sell di fàttaliku doomu aadama yi nga xam ne peut-être xëy na caabi da leen féete ginnaaw ñi wérut ak ñi ñi laago ak ñi ñi nga xam ne euh, lu bari dafa manqué ci ñoom donc lii j'espère que. bu bu fekkente ne da ngay xeex pour la bon cause te dara ñor la lul sa askan lu mel ni buñ la ci ooyee ma jàpp na war nga bokk ci njëkk teew donc franchement may remercier grand bi. ma ko remercier bu baax. parce que xalaat bi dafa rafet trop quoi li dafa noble yal yàlla suñu borom dooleel la donc yal yàlla suñu borom dooleel la parce que di fàttaliku lu mel nii ci doomu adama yi lu def lu dul jur la njëriñ tey ak suba franchement ça fait plaisir man Boutique ma ñëw fii te incha allahu rabbi maa ngi ci ginnaaw ba faw te dañu gis à chaque fois jigéen luy gën a xees mooy mooy violence boo xam ne ñoo leen koy def à chaque fois Sénégal mu toll nii en 2022 est ce que loolu war ñu ko dépassé waaw war nañu romb loolu war nañu romb di néewal doole jigéen parce que jigéen dafa doon loo xam ne li ñu meññ la te ñu am ay sœur am yaay booy ñu sori lool lool lool ci ñun kon donc ki nga bokkulul dara sax war nga ko mën a assister war nga ko mën a dimbale kon lépp loo xam ne violence bu ñuy teg jigéen ñi la dañ ko dakkal te xam ne jigéen lu lu lu lu la ci ñun quoi. donc loolu moom c'est déplorable lépp loo xam ne ñu koy teg jigéen ci métit nañ jihaat ba loolu mu jig fi te ñi nga xam ne yàlla def nañu loru ñi nga xam ne tey aujourd'hui caabi féet na leen ginnaaw ñu leen di ñaanal yàlla suñu borom génn leen ci ndax ndeysaan ñoom. ñuy ñeewantal lañ ci société bi quoi donc gën a fonk jigéen incha allahu rabi tey 8 mars la donc sama xol dafa fees parce que fête bu mel ni tey aujourd'hui maa ngi siy joko taxaw te grand bi moo tax ma taxaw ci vraiment gis nañ ko euh, le 22 le 22 mars bi euh, mu nekk inauguration boo xam ne ñoo ko doon def stade Abdoul euh, kii di Abdoulaye gis ñu woon laay pourquoi. non maa ngi woon ci stade bi maa ngi woon ci stade bi. waaw loolu moom je pense que mbiru ñu koy doxal la te je pense que ñëpp mënuñu pressé quoi. donc euh, li amoon solo mooy ñu ñëw fekkee ko fekkee nañ ko te li ëpp solo mooy liggéeyal askan wi liggéeyal Sénégal donc ñu sport dañ koy dooleel te biñ koy tàmbali du woon joué ci stade bi. incha allahu rabi ñu ngi ñaan yàlla dem coupe du monde ñu defee ko comme nañ ko daan defee ba pare amaat ndam incha allahu rabi loolu rek moo am solo quoi merci. waaw am na benn bu ñu defoon je pense que tey la am trois ans dañu am beneen communauté dañu am yeneen flowers yu bees yoo xam ne peut-être fekke wuñu woon loolu li ñu defaat rek mooy partagé ko mu ci internet bi ñu sargal jigéen ñi te je pense que ku dem tey suñu suñu page di ko ci fekk quoi. waaw Sans Degré existe toujours mais euh, li li li li ñu li ñu teg ci kanam mooy carrière Boutigou Laye te incha allahu rabbi ay mbir la rek quoi donc jihaat ko ba feeñ la après voilà feeñal li ci des quoi noonu la demee quoi. non non non non non du ray dara du ray dara du ray dara du ray dara ñun ñoo far du ray dara quoi <laughs> du ray dara jaajëf jaajëf